Merci, merci. jërëjëf jërëjëf camarades membres de SDDD maa ngi leen di nuyu di leen féliciter di leen encourager di féliciter particulièrement Souleymane Ndiaye pour son engagement pour sa détermination et les grandes mobilisations qui nous a tey ci mobilisation yi muy def bii misaal la ci Souleymane est un homme engagé un travailleur loolu moo ko mën a may en si peu de temps mu mën a dajale lu day nii ma leen di félicité di leen nuyu ndax c'est le Sénégal dans son ensemble qu'il est parvenu à mobiliser mobiliser pour sargal le président Macky Sall qui vous salue qui vous remercie sargal nga ku jara sargal ndax liggéey bi nga xam ni def na ko ci Sénégal sargal nga ku ñu jara sargal ndax téye téye na ko Sénégal may rafetlu la présence des jeunes et des femmes di leen encouragé di leen wax ni lii nga xam ni président def na ko ñun ñëpp ci kontaan ci je puis vous dire j'irai encore plus loin xam nga On ira encore avec vous plus On ira encore avec vous plus vite. Parce que vous le méritez, mais surtout, dañoo am ci lu ñu sukkandiku pour mën a dem ndax ku am ci loo sukkandiku ku am ci loo wute naa koo xamante ni fekkoo fa dara bëgg a liggéey moo tax bu ngeen sargalee président dañ ci ànd ak yéen ndax am na lu fi nekk li fi nekk bari na vous avez cité le TER mi ngi nii sunu ginnaaw vous avez cité le BRT BRT suba suba dinañu commencer essai yi moo tax may inviter les populations de Dakar suba ba Guédiawaye BRT bi dina dem bu ñu amee loolu dem plus loin dem plus vite yokk ko dafa yomb loolu moo tax je vous demande avec vous et pour vous qu'on maintienne la flamme de l'espoir, la flamme de l'engagement, la flamme de la détermination. On a une jeunesse qui veut travailler. On a des femmes engagées. On a aussi des leaders politiques, à l'image de Souleymane Ndiaye, qui sont très déterminés, qui sont très déterminés à servir la République. wax naa ko ko léegi nee ko Souleymane tu un travailleur en tant que tel tu pourras compter sur moi dinañ la jàppale dinañ la dëgëral dinañ la yokkal ndax président moo ñu ko sant moo ñu ne képp kuy sama njaboot rawatina sama njaboot bi ma déggal sama njaboot bi nangoo liggéey jàppaleel ma ko téyel ma ko kon Souleymane je avec moi. Et Inch'Allah, tu vas participer de manière active, comme tu le fais maintenant. Tu vas participer encore davantage à la construction de ce pays. Merci pour la grande mobilisation, pour le soutien. Je disais, am nañu fond fondement ba pare moo tax je me comme le président de l'emploi la jeunesse vous que vous veniez de Podor ou de Lobboudou ou de Douye de Dakar ou de Sédhiou l'avenir de ce pays l'avenir de ce pays Nous y sommes déjà. Mais le présent, c'est avec vous. Et ensemble, on va construire l'avenir de ce pays. Merci, merci, merci, merci.